Euh, salaamaaleykum chers internautes univers info TV chaque jour mbégte lay doon contentement waaye rab de vous retrouver en face ànd ak yéen euh, ak sunu émission bi nga xam ni macha allah dafay dugg di xool li nga xam ne mooy actualité waaye ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir buzz bi euh, tey nag ki ñu seet si c'est quelqu'un boo xam ni nekkatul ku ñuy présenter mais c'est un peu spécial dama koy bàyyi mu nuyoo rek ci biir waxtaan bi di ngeen xam kan la salaamaaleykum. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mohamed di gërëm suñuy ñaari waajur mm-hmm. Mm-hmm. di gërëm kilifa diine yi eh, Ndiaye Rambo te ñu daal lay fekk fii ci studio bi fa seeni waxtaan ak yow euh, pour présenté présenter waat rek ñi nga xam ne xamuñu Ndiaye Rambo kii yee kii waaw Ndiaye Rambo nag mm, mu ngi nekk euh, doomu Pikine juddoo Pikine yoroo Pikine màggee Lamsar ah xaw a xaw dox tuuti nag di def benn aar bu ñuy wax simbu ginnaaw bi ma jaaree ci ay métiers yu bari essence hmm? bi yéen ma fekk studio bu hmm? di nuyu en passage grand Papis Ndiaye. Hmm? Ndiaye Rambo daal ku juddoo Pikine la yoroo Pikine màggee màggee lam saar waaw mhm. euh, tey bu ne Ndiaye Rambo euh, xel yëpp dafay dem ci Wally Ballago sekk parce que gis nañ ak moom li nga xam ne moo di link bi ngeen sekk tey su ma doon wax link boobu noonu nan ci nan la jaare ak nan la def ba am waaw pour dire vrai Wally sama rakk la 2007 hmm? Wally dafa ma fekk Italie hmm? sama xamante ak moom noonu la commencé hmm? boo fekk na ñi ko xam bariwul lool nag waaw sama xamante ak moom nag ci la ci la commencé. xam nga bi yàlla dogalee nag ma ñëw Sénégal yàlla dogal ñu commencé liggéey man ak moom noonu la demee waaw. Euh, est-ce que liggéey ak moom métti na c'est pas parce que nekk ak célébrité te instant yi boo xoolee ci réew mi tànk est-ce que liggéey ak genre nit kooku metti na. métti hmm, na méttiwul ah. waaw parce que nag xam nga bu bu fekkee xam nga ki nga xamante ni yàlla dogal na moom nga nekkal. ah am na lu bari du metti mais nag c'est li ciy xaw a métti as tuut mooy ñi nga xamante ni ñu ngi nekk ci tuus bi di wax te li ñuy wax xamuñ si dara foofu lay metti metti bi amee rek mais ànd ak Wally moom c'était cool. Mhm. macha allah yaa mhm. ñu nekk ci touche bi di wax te xamuñu comme comme par exemple coow bi fi génnee fan yi rek ku ci mel ni moom ak diggante ak Ameth Thiou tax na sax daan na mu dem daal di taxaw ni léegi mi ngi ci ki nga xam ne moo di Pape Diouf ban jàng ci am te pour temps bi muy ànd papaam la njëkk àndal ñëw ànd ak moom. waaw comme ni ma koy faral di waxee Ameth Thiou magu Wally la mais Wally mooy patron loolu la yàlla dogal ah. Ameth Thiou bu jógee ci Wally dem ci Pape Diouf Pape Diouf magu Wally la Wally dafa foog Pape Diouf sot ceeg def ci la foofu mu nekk na ci gën góor góorlu rek te li ko jëlee fii mu bañ mu jëlee ko foofu loolu garaawul mhm. waaw mais est-ce que loolu xel nangu na ko le fait que mu nekkandoo ak papaam jéeg tout à rek daa juróomiyee bëgg a bëgg a pivoter ci ka xam moo ni Pape Diouf est-ce que xel nangu na mais garaawul mhm. garaawul parce que xam nga li ma koy wax faral di waxee rek euh, Faramareen ramdaan loxo la loxo loxo bu ci baaraam jógee dëgg la dina manqué mais du ko tee doon loxo mhm. comprendre nga waaw mu ngi mel ni rek xam nga saaku ceeb tànn yi ngi ciy tànn mhm. di ko sànni mhm. waaw du ko tee doon ceeb waaw loolu moom garaawul ginnaaw bi coow loolu amee tamit toujours Ramadan la ñuy wax parce que dañ naan li muy accueillir dafa dafa dafa bari maanaam des fois sax doo xàmmee tiktoker bi ah doo xàmmee influenceur bi ci biir Ramadan moom daal ku waaye neex jot sa yor sa téléphone filmer ni ma yaa ngi biir Ramadan intégré Ramadan comme si que affaire dafa yomb foofu. non yombul jafewul ah. parce que Wally Baye Fall la. Mhm. te Wally dafa jàpp ni moom ku wërsëgam nekk ci moom rek da ko war a jël da ko war a lekk. moom day yaatal boo gisee booy ku jël téléphone am ñëw filmé noonu la demee hmm? waaye dafa am sax koo xamante ni was lay jaay <laughs> yàlla xam na ko yàlla xam na ko yonent bi biir Ramadan billahi wallahi tallahi koo xamante ni day ñëw ci soirée yi ñëw ci concert yi di joxe was weer wu deewaale fay ko hmm. da koy jàppale rek te yàlla tax billahi wallahi tallahi hmm. waaw xam nga waaw Baye Fall la Baye mm-hmm. waaw Baye Fall waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. mais est-ce que tamit du yoon mu daal di jéem a defaraat affaire yi maanaam affaire bi nekk structure am tey kii moo war a def lii kii moo war a gérer lii fii la nit ki war a jaar. mais loolu am na. am na c'est nag dafa am loo xamante ni yëfi biir néeg la ñëpp koy xam mais affaire bi affaire bi tegu na ci yoon de. Ah, boo xoolee affaire ni muy demee programme ni muy demee ni koy tegee ni koy tegee da ngay xam ni ñu am na ñu nekk ci. ci wetu waali ñu xarañ ñu koy gérer waaw mm-hmm. ah, mais nag c'est nit ñi pëcc xoo bi lañ bëgg a gis rek mm-hmm. hmm? te pëcc xoo boobu du ci dara mm-hmm. hmm? noonu la noonu lañ yàgg a doxee depuis boobu ba tey yàlla diñ ci dimbali diñ ci may ndam kon nan ñu ñaanal yàlla rek affaire yi gën a avancé hmm. euh, ki nga xam ne moo di Ndeye Ndiaye Banaya ko xam Sidi Diop nga ko xamee récemment sax bi mu marié woo di Diop dem na ba këram jox ko benn somme xaalis ñu dem ba moment donné ñu jékki-jékki gis ko ci euh, seenu Wally ko sekk mu daal di annoncé li nga xam ne moo di bàyyam foofu waaye maanaam mi ngi biir Ramadan foofu la bokk moom Ndeye Ndiaye Banaya ah bon mhm. xam nga nag samedi boobu moo boobu ma xaw a raw que man dama xaw a guddee ñëw soirée ah mais moom bu ñëwee seen waale war na fa ñëw loolu garaawul ah. mais kantaa nag léegi mu ngi biir Faramaren wala mu ngi biir Ramdan loolu xalaatam la c'est normal dafa am loo xamante nag loolu Wally Seck moom moo koy apprécier mm-hmm. man Ndiaye Rabo mën naa koy apprécier mais daal bu fekkee daal am naa petit conseil boo xam ne mën naa ko jox mm-hmm. li bëy daan dundee mm-hmm. ba am sikkim bu ci góorgóorloo mën na cee dem ba dee te wax dëgg yàlla fi mu nekkoon wala fi mu nekk ah mu ngi doon bay wërsëgam mu ngi doon bay waaram mu ngi doon am lim ci mën a am mm-hmm. waaw léegi nag am na yoo xamante ni nag décision bi du jóge ci man mm-hmm. waaw moom nag bu moom mën na mën na wax nag mën na wax mën na wax mën na wax xalaatam mm-hmm. mais dafa am loo xamante ni nag décision finale bu mujj bi ci Faramareen bi lay jóge waali mais ci biir bëgg-bëggam mi ngi taxaw ni carrément moom ak Awa Banaya li ñu bokk la ba tax na moom fii la war a bokk bés ni ku tey fii lay bokk boo gisee mi ngi waxee ak cœur mi ngi waxee ak xol mi ngi waxee ni comme si que bokk bi dafa leer te man je pense que Ramdan intégration war te demee noonu ci kaw seen. waaw mooy li ma la expliquer rek. Mhm. xalaatam la wax. Mhm. Hmm? parce que xam nga nag des fois nit dina toll foo xamante ni buy wax du waxee xelam mais bëggoon naa tamit mu waxee xelam parce que tamit xam nga àdduna du cere mais des koy laalu mhm. te wax dëgg yàlla bu fekkee dafa nekk nit di liggéey ak moom yàlla di leen dimbali mu néew mu bari ah ma jàpp ni kooku li am mu ngi koy bokk yow da nga góor góorgóorlu rek comme que awa yàlla dogal na moom mu fii yow yaa ngi fee ku ci nekk na bay waaram rek parce que yéen a bokk bool bi après yéen ay yéen ay cotiser ñëw bokk bool bi tàkk lekk Mm-hmm. Ah, loolu yàqu ci dara. Mm-hmm. Mm-hmm. mais gars yi dañuy wax ni ci côté Wally ko Seck dafa fonk li nga xam moom lay liggéey par rapport nga xam ne moo di Sidy Diop ndax boo xoolee tout récemment awa bi mu nekkee ci moom euh, daf ko jox oto nga xam ni mi ngi koy topp par rapport ak ak bànneyaa bi mu nekkee ci Sidy Diop yàgg na mais gisoo tey ji loo xam ni mën nga ko wax ni que lii moom la ko Sidy defal à part bi mu demee mariage yëkkati benn cinq cent mille waaw man nag xam nga diggante boobu loolu duma ci wax parce que wóoruma ba xam mu ngi koy defal wala du ko defal. comprendre nga mhm. parce que nag xam nga bu fekkee foo xamante da fa nekkoon boobu ba tey defoon la nga toog fa mhm. parce que mag magum jëmm nag buy naan ndox mu tàng defe naa suukar saa tax te nag wërsëg yemul mhm. wërsëg yemul parce que nit ki mën nga yaakaar ni fi nga nekk nii doo fi am lii boo fi jógee boo demee fee am fa lee mu gën fa yées wërsëg yemul moom bu fekkee yàlla dogal na moo njëkk fël awa bànn yaay wërsëg yemul yàlla da yàlla day bind famille ngeen bokk ndey ak baay nga mujjee cee juddu yow mi mujjee juddu sax sa xaru tabaski matul kenn reyalu la xar dañ la tudd noonu parce que fekk na sa baay néew doole say mag ay xar lañ leen rayal wala ay nag ngént leen ngént lu mel ni jàmm mm-hmm. yàlla dogal yow mi nga xamante ni yaa mujj juddu te kenn géntewula maanaam kenn reyalu la deret kenn kenn reyalu la deret kenn tuuralu la deret bi mooy nga ñëw ñëw ñëpp mujj leen a yor yaa ngi understand mm-hmm. wërsëg yemul mm-hmm. parce que boo xoolee ci famille Wally Ballago Seck moo ci mujjee way mais xoolal ni ko yàlla def wërsëg yemul mbiru suñu borom la hmm? mm-hmm. waaw mbiru suñ borom la nit daal man gisuma ne da nga war a ànd ak nit ndax am am ndéem nag am-am baax na. Mhm. Hmm? mais am-am dee ko am ca ba nga ko waree am dee ko am ci bu mu jotee. Mhm. am na loo xam ne kenn du ko forcé. Mhm. mais euh, Ndiaye gis-gis ci li nga xam ne moom la showbiz bi di doxee parce que nit day bàyyi fii nekk fële nit ànd ak kii nekk fële te boo xoolee tout le temps liy jógee suba teel di ñëw Ramadane dafa bari ndax ci côté Omaro tamit noonu la fa demee woon lan mooy lan mooy secret showbiz bi wala lan la gars yi la war a doxee te xamuñu ko. en tout cas showbiz daal du du du du du làmb. Hmm. showbiz ni muy doxee mooy ni ko Wally Seck di doxalee am ak jàmm ñëpp am ak salaam ñëpp yéene jàmm ñëpp da nga koy woo concert sax mun la woowal diw. Mm-hmm. Wally da koy woo ay concert parce que ay événement am yàlla dafa dogal muy bari muy occupé da nga koy woo mun la woowal diw ki ñëpp jàpp ni kooku concurrent Wally la am na concert yoo xam ne joué na ko Wally ni diw woowal fële parce que man instant bi dama jàpp. Hmm? showbiz noonu la war a doxee. Hmm, hmm? showbiz noonu la war a doxee xam nga Matar Subatel mu ngi bay waaram ci ni mu war a bayee waaram. xam nga moom moom kenn dégg ko ci lu bari. mu ngi gérer gérer xam nga showbiz bi daal du làmb ah du làmb du ba nuy xiiroo ngaayoo di dugg ci ay détails. showbiz bi ku nekk na nga respecté sa liggéey am sa fulla am sa fayda. waaw mais quant ñu jaxase ay yàq ak ay détails yooyu moom yooyu moom doxul doxul ko quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. mais dañuy faral di wax ni artistes seen biir ñoom amuñu benn problème nee nañ ñi nga xam ne ñooy sukk yeeg ñi nekk ci biir ñoom ñooy créer affaire yi. waaw fii nag ku ci créer affaire sa problème la man moom duma créer kenn affaire te yow mii ndeyi mbili bi créer woo affaire mm-hmm. parce que nag avant tout nit ki sa bopp la gënal ah safirulaa moo la war a gënal di moins. parce que gis nga dignité deesu ko wutal nit dignité yow yaa koy wutal sa bopp yaa ngoon de parce que man ànd ak Wally Seck ñëpp xam man ku ma xam-xam ne Wally Seck lay àndal mm-hmm. mais ku ma neex baali parce que interdiwul kenn parce que moom bu bëggee dem baali day dem baali óor bu ko jotam mayee bu bëggee dem Pape Diouf day dem Pape Diouf bu bëggee dem keneen day def dem keneen comprendre nga waaw mais kantaan nag ñenn ñuy tudd ñuy jéem a jaxaseeg di këram kër yi non jaxase moom du jàll parce que Wally kenn mënu ko jaxaseeg kenn Wally Baye Fall la. xam mhm. xamu ko sax Wally xamul lu bon Wally lu baax la xam. Mhm. yaa mhm. te est-ce que Ndiaye Rambo euh, doon na benn instant tey Wally war a tëgg mu dem beneen soirée wala tey mu sentir euh, ki nga xam ne moo di Pape Diouf moom moo mu dem aisément. kan si yow rek Ndiaye. may man démb démb maa ngi soirée mu mujjee. mu doon tëggee waggu démb démb démb. Mm-hmm. di bee passé maa ngi bëggoon dem Pape Diouf mais yàlla dafa dogaloon ma simbi woon yaraax ñëw sonn tëdd ne xaaral ma noppalu tuuti mm-hmm. far yeewu 5 heures di matin mais dama doon dem soirée Pape Diouf lande bi moom moo nekkoon anniversaire defal naa ko vidéo mm-hmm. waa gis ngeen vidéo bi ci wàllu def moom tamit. mu ngi fekk wàllu Europe. wàllu soam la teg di ko fecc te bu ñu doon filmer chaque jour wàllu ci biir oto bi. Sénégal du ni déedéet. parce que li muy déglu Pape Diouf dafa bari. ci biir otoom li mu koy déglu dafa bari li koy déglu këram dafa bari parce que xam na ni Pape Diouf magam la waaw comprendre nga yàlla nag mooy bindee ay jaamam ku ci nekk mu ne la nii lay demee sa destin waale li mu doon xamu ko man xamuma ko waale li mu doon mbiru suñ borom la képp ku nangul suñu borom da koy nangul mm-hmm. képp ko bañal nag ah bañaloo waali suñu borom mi ko def li mu doon ko bañal mhm. mais waali wax dëgg yàlla du moom moo def boppam nii mhm. waaw euh, démb tamit récemment ñu def gis ngénteem bi nga xam ne macha allah euh, mu tuddee doom ki nga xam ne moo di jaaga euh, ba pare yëkkati benn som bi may ko ki nga xam ne moo di yaayam ñenn ñi di wax ni que som bi waru ko def publique ñii dañu waxoon dafa war a xaar ñii waxoon c'est pas le moment. ah léegi tuddee bi waroon na ko def public ñeneen ñi waxuñu loolu Wally li muy defal yaayam te kenn publié wu ko Massamba fekkeewu ko ma Demba fekkeewu ko mhm. lim def bërki démb cinq millions yooyu moo ci na ndaw nan arrêté kontaan na ci yaayam defal na yaayam wane na ko oh man maa ngi ne damay mooñal sama yaay di ko wane damay tayal sama yaay di ko wane damay feccal sama yaay di ko wane parce que loolu laa am waa léegi ku jël xaalisam may man de Wally man de Wally daf maa ñaax dama gën a bég ci moom parce que ku sañoon mhm. am loo defal sa yaay ñooñu xam nga lu ñuy def nañ jéem a wut lu ñu defal seen yaay te bàyyi kii liggéey xaalisam bii jël ko may ko yaayam nga naan ko war na koo publier waru ko publier yooyu moom ay ay détails la quoi. waaw. Mhm. Euh, tey Ndiaye Rambo ñu xam ko biir Ramadan ñu bëggoon xam rek maanaam doxinam biir Ramadan ak lan la nekk di gérer biir Ramadan. man lépp laa man magu Wally Seck laa. Mhm. Hmm? man maay loom douze métiers. Hmm? ci côté Wally Seck man maay l'homme douze métiers di nuyu soxna Aydara ah macha allah ay Aydara Serif loo am jomb la ndax nag noonu nga mel xam nga Wally démb nee naa ko Wally mu ne am ma ne ko je sais que nit yee gentleman mais chaque une grande tombe y a une gros gros grande dame soxna Aydara ci ñooñu la bokk eh man du ma tagg nit ki te man bëf man yooyu frégo ma mm-hmm. mais dama ko dund moom. ma bokk ci ñi xam soxna Aidara ma xam ni daa muñ ma xam ni sëykat tigi la ma xam ni guerrier tigi la soxna Aidara du dugg ci lenn lu yoonam nekkul des fois sax lu yoonam nekk ci dara te du ci dugg kenn gisu ko fenn kenn gisu ko muy taxawaalu kenn gisu ko muy wax kenn gisu ko parce que mu ngi sëy sëyam gérer sëyam hmm? mm-hmm. di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko di siyaare tamit turandoo bi nga xamante ni ah, gisaguma ko ah su suñu nen tuuti boobu di ko ñaanal yàlla mm-hmm. yàlla sàmm ko ak ñoom Ndella ak Mohamed moomi mm-hmm. hmm, ak njaboot gi yëpp ah di nuyu tamit suñu yaay yaay jaaga tur bi day dañ la ko tuddee rek waaye yow li nga mérito kenn xamul lim toll mm-hmm. ñu amoon ay milliards defal la ko parce que mérito nga ko yaay ju gën ci yaay nga wax dëgg yàlla man day wax dëgg yàlla bu ma amoon li Wally am dinaa ko defalee ni mu koy defalee ndeyam man ndax man heure bu ma joué samedi joué ko dimanche mu néew mu bari daw naa sama kër yaay wut lu ma ko dolli ci légati cere ji mm-hmm. yee mm-hmm. mu néew mu bari daw naa sama kër yaay man aw ma lu may jox sëriñ talu ma ko sax man sama yaay rek waaw waaw sama yaay daal lu ma am moom laa koy jox tey jii sànq nga seedee soxna ay dara lu rafet te loolu néew na ci ki nga xam ni comme par exemple ngay sa yeg star wala dara tey dafa am loo dund ak moom lu la marqué ba tax na tey ngay kat yi kàddu jëmale ko ci moom. damaa dëkk ak moom. Mhm. damaa dëkk moom ma xam ko ndeysaan bi laay ndeysaan ci yaru ci jullite ga ndeysaan moo tax des fois booy dégg ñenn ñi wax sax dangay dangay leen yërëm parce que xam naa ni ci ki niy wax mën na leen alak. yàlla xam na ko yonent bi waaw moo tax euh, genre Wally Seck yi soxna su mel ni soxna Aïdara rek lañ mën a am moom lañ war a am parce que soxna Aïdara jigéen la boo xamante ni mu wax la ko waxu la ko moom day defar nit xam nga Wally ak fuggam ak ay nitam ak ni ñuy duggee kër Wally guddi ak bëccëg amul heure amul heure waa waali du añ heure añ te waali boo fekkoon bool bu nuy añee da nga naan danga nga naan da nga naan noo fii waali nekku fi des fois sax waali day taxaw te lépp jabar jee koy organisé mooy tàngal añ bi mooy même bu ko fekkee mu tëdd du nelaw day jóg ñëw defar toppatoo ñëpp ñii mu defar leen ataaya ñi bëgg lii ñi bëgg lii te pourtant kër ga am na ay jànq mais dafa am loxo moom moo koy defaral boppam maanaam téye jëkkëram téye ay nitu jëkkëram téye sax ñu dul nitu jëkkëram moom maanaam nday ji seex la gis nga nday di seex boo tëddee newul jaxaan rek boo tëddeewul njaaxaanaay rek am na loo yàq nday di seex da ngay tëddee jaaxaanaay su ko defee kii bu jàppee fii kii jàpp fii ñu xam ne jaaxaanaay la tëddee ñu ngi koy ñaanal yàlla ay dara sérif waaye nag c'est normal Seydina Muhammad bu dee sa maam waaw <laughs> ay dara sérif pisen loof loof <laughs> Eh, Rambo tamit ñu eh, benn instant boo xam ne dafa jëloon simb yóbbu ko Sorano changé waat altitude simb bi lan lan la jublu woon foofu. waaw simb bi nag eh, dañ ko dañoo dañoo waxoon Sorano mais dañ ko mujjee jël yóbbu woon ko cosaan. mooy le 18 mars bu le passé. yàlla may ñu ci nag réussite total may ñu ci ndam. en passage may may nuyu Sadio Ndiaye. di ko wax Sadio bii nag cri du cœur la. yàlla dafa dogal nga def lu ne ci simb ci senegal ak ci bitim réew ma gis ñi nga xamante ni ñoom nga doon àndal fii ma mën cee tudd ngañ ba mën cee tudd am Diop mën cee tudd Yugo Cissé mën cee tudd Tayga mën cee tudd Blaise des na ñeneen Sadio Ndiaye jàppale ñooñu jàppale leen am na ñoo xam ni gis naa leen sama rongoñ dafa dal sama dënn te ñoo ñooñu ginnaaw yàlla loo doon ñoom bokk nañ ci gesu leen parce que yaa ngi bitim réew yàlla ngi lay dimbali jàppale ñii ma la tuddal démb laa gis ngañ ba sama rongoñ dafa dal sama dënn te ginnaaw yàlla ñooñu seen life yëpp ci yow lañ ko paase jàppale leen mm-hmm. waaw simb nag ñu ngi ci ba léegi di bay suñu waar ah ñu ngi ci ba léegi ba incha allahu rabbi di ngeen ma ko may xam naa publicité bi euh, mardi incha allah maa ngi commencé Fass Tëngéej watu kër meer xaar mbay ma jaaga sama yaay jooju di ko ñaanal yàlla moom yàlla sàmm ko aar ko. Mm-hmm. Mm-hmm. mais sànq lu tax nga waxee ak sacré nga woo Sadio nga ak ni nga ko waxee nii nii nii lan moo tax nga waxee ko noonu wala ñooñu dañoo ñëw xamal la ni ko toppatoo toowu leen. wala mm-hmm. yow yaa gis sa non nit ki boo ko toppatoowee buñ ko toppatoowul jarul wax man xam naa nit xam naa ñooñu liñ liñ dajal fa Sadio mais boo leen gisee di nga xam ni ñii jariñu woon ci aar bi nekk te ginnaaw yàlla ñoom ñoo tax Sadio doon lim doon hmm? kon Sadio da leen war a jàppale. Mhm. da leen war a jàppale. est-ce que jël nga sa téléphone woo ki nga xam ni moo di Sadio lan moo tax nga préféré. Hmm, waaw dama préféré nag wax ko fii ci dëkk bi nii. Mhm. dama préféré loolu moom sama grand la yoon naa numéro. te xam naa ne bu ma ko waxee dina ko def parce que am na cër bu dox sama digganteek moom mm-hmm. mais lii cri kër la boo xamante ni il faut ma wax ko Sadio il faut nga gestu sa nitu démb yooyu parce que nag ñooñu dajal nan la lu ne waaw yow da nga daan tëdd ba cinq heures cinq ñoom ci biti la leen fekk nga solu génn ñoom ñooy dàqe ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy kon boo demee ba tey yàlla ubbi beneen buntu ci sa pàcc ñoom it leen bunt ci sa pàcc loolu dina ci am solo. Mhm. ce que Ndiaye en personne moom mi ngi jël nit ñooñ à charge di leen jéem a ubbil yow sa côté. li ma ci mën. Mhm. parce que nag mënuma man sama bopp laa njëkk a tal ak sama yaay xam nga balaa ngay engagé nit day fekk yow sa sa mbir mat man sama dara matul kon mënuma engagé kenn mais li ma ci mën yàlla wërsëgal ma ko. maa ngi koy def ci ñenn ñi waaye nag wax dëgg yàlla comme que nag fi mu toll nii maire bi mu ngi ci regaltu cere bi léegatu cere bi mooy priorité. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. ba pare naturel bi dañ ko gis ci ki nga xam ne moo di Ndiaye Rambo maanaam tey li nga xam ni moom la yaayam di dund wala li muy def moom da koy fësal par rapport ñenn ci nit ñi dañuy am fu ñu toll ci ah dem nañ jëli appartement seen yaay c'est très rarement nga gis leen ñu ñu ñu leen ci affiché wu lan moo tax loolu. ma yërëm ñooñu rek noonu <laughs> dama leen yërëm xam nga bu yàlla dogalee nga bàyyi sa ndey ci néegu ñax ndéem néegu ñax baaxul bonul mm-hmm. yow nga dem jëli appartement di nga romb kuy tabax R plus 4 pour ndayam boo jëndee dibiteri lekk toog di lekk yaag say xarit xamoon lu sa ndey di reere wala sa baay lu muy reere di nga gis ku jënd emporté di ko yóbbul ndayam man nag ki nga xamante ni ñee naa ko xam mooy kan mhm. mooy ki nga xamante ni daa bëgg ndayam di defal ndeyam defal nag du ci xaalis man des fois ma jóge fii dem suñu kër du ma xaalis bërët lay def fecc feccal sama yaay ba mu kontaan reetaan mel na ni jox naa ko milliard comprendre nga mhm. dama bëgg bokk daal ci doom yi tiituroo seen ndey seen baay seen ndey seen baay di leen tiituroo mhm. mais bëgguma bokk ci doom yi tiital seen ndey ak seen baay moo tax ñuy lancer message waa nguur gi ñu dimbali ñu parce que nag dund gi metti na mhm. fi mu tollu kilo sawbe dama jox soxna si ne ko toggal ma mbaxal bu tooy man sama mbaxal bu tooy du am jër bu mag yaboy rek mu ne ma benn yaboy trois cent cinquante ndeysaan jour boobu sax benn yaboy laa mujj def ci kii ba ndax seer kaani kaani toj benn cent franc te yaboy ndeysaan bu mënoon xoole xoo xoole rek boo ko boo ko mënoon def dañ lay dàq jekk ay yaboy ñu dem ba léegi yaboy di jël trois cent cinquante dëkk bi metti na trop barki mhm. mhm. boobu tamit te patriote nga gis nga xam lam li nga xam ne moo fi xew maanaam dee yi ak yàq yi ak li nga xam ne moom la jeunes di doxan di doxee ak euh, yi fi am récemment agression yeeg maanaam loolu gis Sénégal ak laaw loo fa daan dégg rek moment bi da nga koy dégg Sénégal waaw yooyu nag xam nga man moom wax dëgg yàlla ay violence yooyu moom bariwu ma ci ah et puis luy tàggale bari bariwu ma ci man daal li nga xamante ni bëgg naa ko mooy ki nga xamante ni yàlla dogal na mooy njiitu réew di président de la république di ko ñaan loolu mhm. ndey di seex nga te ñëpp yaa leen bokk yilif muy pouvoir muy opposition loolu la yàlla dogal yow fi mu toll nguur gi ak li mu tuddee doole yàlla fi mu toll sa la ko teg jégaleel mhm. jëlaleel ndax àdduna amul solo mhm. waaw ñu ngi nuyu bu baax nag Ousmane Sonko mi nga xamante ni dégg nañ ni dafa nekk grève de faim mhm. grève de faim bi nag bu dee yow yaa koy def en personne lekkal bu fekkee lekk bi nga jóge sa kër bu fekkee nag daa am keneen ku lay toggal te bëggoo lekk lekkam grève de faim dagan na mais jeunes yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk di yàq li nga xam ne moom lañu bokk lu ci mel ni bus yi station yi ñooñu lan nga leen di wax. waaw di leen wax ne leen yàq baaxul yàq baaxul parce que lu waay yàq ndax ki nga bëgg mu falu bu ñëwaatee day sonn pour defar ko rek ah. man bëgg naa daal ñu manifester pacifiquement ah ñu kaas seen droit te tamit ñi ko xamante ni ñoom ñoo ko war a ordonné ñu ordonné ko. Mm. ah ñu kaas wax seen métit ah après mu jàll ah. Séné Sénégal Sénégal avancé daal parce que xam nga Sénégal ni muy doxee nii ñun ndeysaan ay jamono bi ñu gënee doon xale mosuñoo xalaat Sénégal dina toll fii. Mm-hmm. Hmm? billaay ndeysaan parce que xam nga voix autorisée yi soi-disant ñun tuddee voix autorisée doo leen dégg sax ñu wax ci mbir te Sénégal dégg dégg tar na billaahi ndeysaan sa day daw sax. dégg mm-hmm. tar na te ndaw yi doo ngay dee doo sax comprendre qu'est-ce qu'il lay mhm. billaay ndeysaan. te pare initiative bi mooy léegi dañoo faral di jël gaal gi te ñi ciy àgg bari na waaye ñi ciy dee tamit bari na lool. waaw gaal gi de man awma droit tere ko kenn ndax nag ko amul la gënal def lu fi sës te nag xam nga di xool sa ndey mhm. comme par exemple ci man mhm. man presque dund naa benn koñ bu ñuy wax Lamsaar table Tivaouane presque trente ans. chaque jour sama yaay di yeewoo ci ndox sama baay di yeewoo ci ndox may ngacc chaque jour di gis samay rakk di gis samay mag ci biir ndox mi man Ndiaye Rambo maa ko dund am na ñu dëkk Lamsaar di leen ko di leen hmm. wallahi lu ma 30 hmm. dem na ba bu ñuy togg ci mbedd lañuy toggee bu ñuy añ ci mbedd la ni añee 30 hmm. ans jooju bu yàlla dogaloon ma gis gaal non bu ma gisoon salub sax dama koy jël wala bant sax dama koy jël waaw parce que imagine nga xëy doon góor mhm. walla nga doon jigéen boo solee sa yére yaay mu jot la wala boo solee sa dallu baay mu jot la nga xam ni lii gis nga sa papa di xiif gis nga sa ndey di xiif mhm. nga toog wala jàkkaarloog ñoom loolu góor mënu ko waay mhm. non non non góor mënu ko góor mënul loolu dafa am loo xam nag yëfu gor la gis nga xale yi jarul encouragé nag ci dem leen géej dem leen dugg ci gaal gi waaye gis nga nit boo koy teree dara day fekk nga dig ko dara walla nga defal ko dara wala mu yaakaar dara dara mun ko co fekk muy borom daraja fii ñëpp dañoo bëgg a doon borom daraja mm-hmm. waaw mm-hmm. kon ñu ngi jaale ñi nga xam ne ñoom ñoo jóge ci gaal yi te jotuñoo àgg seen bakkan daal ci des ñoom it ñu ngi leen di jaale bu baax a baax parce que comme ni mu ko waxee rek euh, yëfi gor la ndax am na situation yooyu toll yoo xam ni euh, mënoo xool sa yaay wala mënoo xool sa papa donc ils sont obligés ñu dugg ci donc képp koo xam ne tamit mi ngi aw yoon man man je me dis que na patiente tuuti parce que c'est pas le moment boo xam ni boo koy jël daal man je préfère nga jël ko ci ci légalement ci ga ci ci avion wala nga xaar li il nag suñu état yi ñoom dimbali ñu. Mhm. Hmm? gars yi bu ñu amee passeport dem di ñaani visa. rendez-vous bi dèjà balaa nga ko am yàllaa xam di nga ciy fere xaalis boo amee rendez pour déposer visa di nga joxe xaalis. Mhm. buñ la mayee nga ñàkk sa xaalis buñ la mayul nga ñàkk sa xaalis. Mhm. loolu tamit dañ ci war a taxaw. Hmm? di nuyu sam benn paa bu ñuy wax sëñ Mamad Diagne dëkk luga papa billahi yaa dëggu sa vidéo balaa ma ko xool laa koy amee. ndax cofeel gi ma am ci yow ndax dëgg billaay ndeysaan aka moo neexoon sénégalais di la déglu man de maa ngi lay déglu maa lay dégg di la ñaan yàlla yàlla sàmm la uute nga ak ñenn ñi nga xamante ni luy tal réew rek la wut luy yàq rek du ñu ñaw teppi rek la ñuy def. tey boo doon ciblé bari na nag Sénégal. Mhm. waaw du tudd turu kenn. mel ni kuy tooñ bàyyu kenn parce que bugguma ñu tooñ sama bàyyi waaye daal wax dëgg yàlla man daal sëñ Mamar Diagne maa koy sant di ko gërëm mhm. après nga dugg ci internet bi xool góor googu mhm. sëñ Mamar Diagne la tudd mhm. sëñ Mamar Diagne sëñ Mamar Diagne borom Louga maanaam paa boo xamante ni billaahi yàlla xam na ni yonent bi xam na ni duma gis sax ndéem nit ñi ngi koy suivre nag moom dañ koy suivre lu baree baree baree baree bari mhm. mais maanaam du ma gis nit ñi di dagg pàcc yi di ko dugal ci TikTok beeg extra extra mhm. waaw. tey Ndiaye ñi nga xam ne ñu ngi wax ni que instant bii Simb fayatul parce que ni mu amee woon ampleur bu njëkk amu ko léegi. voilà léegi sax entre parenthèse la mhm. euh, ki nekk Walfadjri nu mu tur bi laa fa xaw fàtte tuuti quoi. waaw day def chronique. maam Biram Wàcc déglu naa la sa vidéo man naw sa xam-xam loolu wax dëgg yàlla ma lay déglu di la dégg ma dégg la nga ni simbu doxatul moo tax bugga Bougazelli dugg ci politique bi xanaa journaliste kon tamit dafa jubatul dañoo dëggootul moo tax ñenn ñi dugg ci politique bi question la. léegi moom foofu la nga koy tontu yow en tant que nga nekk di simb. waaw loolu laa ko tontu. Mhm. man man man li ma bëgg a faj yàlla di ma ko wërsëgalee ci simb si maa ngi koy faj bu ñu ko xeebal pourquoi nga bëgg a wax simb doxatul fan nga teg loolu kon journaliste doxatul ah ndax man gis naa ay journaliste yu ñu nekk ci politique bi de gis naa ay journaliste yu ñuy jàpp journaliste yi ne nemm duñ wax dëgguwu leen mhm. waaw. kon yow daal sa côté da ngay ambaatu lool simb mi ngi fay bu baax a baax baax. déedéet du ma wax mu ngi fay lu baax Sénégal gii kenn moo fi gis luy fay lu baax nan ma ko wax. kenn moo fi gis Sénégal gii ñu nekk luy fay bu baax nan ma ko wax loolu jeex na Sénégal. Mhm. waaw waaw dañuy waxante dëgg xam nga simb dafa am ñenn ñoo xamante ni ñoom ñoo ko bëgg a rey. te bëgg a rey mbir taxul mu dee mën naa xam nag parce que simb ñun ñoo ko moom fii leen loo fi jël am na yeneen réew mais simb amul beneen réew ñun képp kase dong ñun ñoo ko moom mhm. waaw euh, tey lan mooy projet yi nga xam ne moom la Ndiaye Rambo di pare pour simb waaw projet yi nag projet nag pour dire vrai bari na mhm. ah. waaw bëgguñu ko bëgguñu ko bëgguñu ko waxagum mhm. ah. mais daal wax dëgg yàlla ñu ngi ci xolol barke yàlla garaaw dama taal YouTube bi rek yem ci góor mu ngi nii kii mooy sëñ Mamad Diagne kii góor gii moo nekk Louga caméraman zoomal ma sama papa ji waay kii moo nekk Louga dëggu ba xàmmee woo ku mu doon ak lu mu doon ku mu bëgg ak bañ mm-hmm. moo nekk nii mm-hmm. na góor gi mu ngi nii. Mhm. dëggu ba kenn xamul kum bëgg ak kum bañ lu mu doon ak lu mu doonul mbir lu mu mënti demee ni mu demee la koy waxee mhm. faralul ma sàmba faralul ma demba dëgg mhm. la faral mooy góor gi sëñ Baara Njaay boroom def gis sama waaj ji dégg naa yaram bi daa xaw a jege di waaye sëñ baara yow mi xamante ni yàlla dogal na nga daan faji nit boo tawatee di nga wér ndax danga faj ay junniy junniy doomu aadama yéen gi ma xam ni boo ko àttanul woon yàlla suñu boroom dina la ko teg ñu jëm ci màggalu tuuba nga daan def lu ne ci màggal gi ren gi ngay gën a def lu ne ci màggal gi mm-hmm. incha di leen rappeler que vous êtes toujours sur Univers Info TV tey nag ñu daal fii dalal ki nga xam ne moo di Ndiaye Rambo ñu gën ko xam biir Ramadan waaye tamit spécialement di dund li nga xam ne moo di simb ñu gën ko xam mu nekk suñu tradition fii ci biir Sénégal tey moom la ñu dalaloon fii ci biir Univers Info TV di la wax ni la ñu ngi jëppantalu émission bi balaa boobu nag dañu koy bàyyi mu dal di tàggatoo rek ñu daal di mën a tëj li nga xam ne moo di émission bi. waaw kontaan ci di siyaare si cameraman bi. Mhm. di wax borom kër gi mhm. Gallo kër gi mhm. galo loo mën a jàppale ñii jàppale leen xam nga lu tax ku nekk ci clim bi na gërëm ki monte clim bi ñii ñu ngi dox guddeeg bëccëg pour wut ay information pour bëgg site bi gën a jëm kanam site bi bu dee mu ngi jëm kanam dangay fexe nag ñoom it ñu jëm kanam ndax ñoom ñu jëm kanam. Mhm. mooy sa dolli yi jëm sa kanam. Mhm. parce que moom mooy tax ñoom ñuy dox ci kanam. Mhm. pour jëli li tax site bi jëm ci kanam te site bi bu jëmee ci kanam yow nga jëm ci kanam jàppaleel caméraman yi. jàppaleel ah ñi ñi ñiy jëli information yi c'est important. Galo dëgg la. <laughs> donc merci beaucoup bu nekk message bu am solo merci beaucoup encore une fois di leen wax ni que nii lay demee saa su ne euh, dem leen ngir abonné euh, partage vidéo yi bu ko defee lépp luy info rek univers univers TV ànd ci ak yow mu nekk suñu priorité donc merci beaucoup